centre d'examen bu lycée Lamine Gueye bu ndakaaru candidat yi door nañoo génn salle de classe yi lii rek moo desoon ci concours d'entrée ci école bu douane ñoom candidat yi nag niki tey jii ci dimanche la ñu sëgg ci épreuve mathématique ak géographie du seen moom jàpp na ne sujet yi yomboon na. épreuve yi épreuve ko. bon on a fait notre matière yi ñuy def démb démb dañoo xëy def euh, rédaction huit heures après dix ñu def euh, dictée ensuite question sur question léegi après tey ñu ñëw def mathématique. ensuite ñu def euh, kii euh, ñu def euh, géographie waaye. bi mi di jotee lu ëpp ci candidat yi nag ñu ngi taxaw ci buntu école bi foofee nga xam ne fa dañuy waxtaanee. ci sujet yi ñu dal di def ay groupe kenn ku ci nekk nag di wax ana naka la comprendre bi le sujet bokk ak moom gis-gis candidat bi moom ba léegi libéré wul militaire la mu ngi xamal sax ne ñàkkul ne am na ay jafe-jafe. bon épreuve yi c'était abordable. Euh, et aussi def nañ lépp li nga xamante ne moom lañu waroon def. bon li ñu gënoon sonal tey nag journée tey bi la parce que démb c'était abordable rédaction beeg texte de question c'était abordable mais li ñu gën a sonal tey mooy mat bi mat bi daal xam nañ sax mais dañuy xaw a fàtte tuuti rek. uteek étudiant bi nga xam ne moom ancien militaire la mu ngi bokkoon ci fanweer ak ñeenteelu euh, bataillon infanterie bu Kédougou am na master 1 en poche moom sax nag am na yaakaar ci le sujet. contrainte yi mooy ne duñ la may temps par exemple euh, soo soo waree réviser tey soo déposé woon tey tey jii bañ may la bañ may la autorisation parce que am na ñoo xam ne sous les couleurs lañ defee peut-être mën naa wax ni deux jours wala trois jours lañ leen may environ te yaakaar naa deux jours trois jours concours c'est sélectif. nañ ci fukki junni ak juróom yoo xam ne ñoom ñoo war a amal bile concours. nga xam ne organisateurs yi dañoo bëgg dañ ci amal tànneef gu doy waar waaye tamit lépp ci transparence la ñu koy amal ci ñoom bokk na ci ñu am brevet baccalauréat licence maîtrise doctorat wala sax ñoo xam ne dañoo lajj ci seen cursus ñoom ñëpp nag ñoo bokk li leen tax a jóg bokk ci kooru duwaan waaye ñaar téeméer ak ñetti post rekk lañuy joxe